ey daw si leen daw si leen daw si daw si leen waay doxal doxal xoolal tabaski bu ci nekk ak ñi dikke ee eh, tabaski bu ci nekk na ci xewe waaye tabaski ren ji man moo ma lu tax xoolal toj ma gétt gi le cam babel de ba cam mooy doomu ndayam moo ko jàppale waaye nag bay caf ka mi ma gis yàq ko indi am nee naa leen malaw gi ci biir gi ci kër gi neex sala gal gagal gal saga gal gal sala gagal ndey jang bangama billahi ma billaay càmbawuma la kenn du am sa nit di ko yow xam nga da nga bok ci man lolou la xam munuma la ba nag la jamono ji rek moma ma deug la waye yow xam nga ne munuma la ba yaay sama geer sama geewel lolou amna man xam nga ne sa bak daf may daaneel oh lolou dafa yag ñàkk laa dégg rek lolou dafa yag worul lolou dafa yag yóbbu nga ma xew salum de billahi hey waa ci watu kër suñ moodu la jaan dégg nga ba ma fa yobbo mhm. lolou la fa am dan ma may ba may ma sax nak ak dom sa jëmm ji moo tax ma am ko. ko koy borom teranga yu bëri. laa ilaaha illallaah. ko koy borom halima gi sëñ Modou Ladiane borom jassi gi dag taru dag wallahi ta day dag di nga maam day flat di def lepp kooku la. deug la ma la ko wax de. man dal dama jënd sama ben xar. te jënd ma ci man. xam nga rek li jëndi dal ba ñu jaay ma ben xar. waaw. xal mu ñëw rek indil ba problème. problème bu demoon daa feebar. man de musuma gis xar mu mel. nee nañ ma daal ku ko bàkk lay laaj. ko bàkk. waaw. ah nday nday nag nday nag yaa nag nday bu fekkee da ngaa gën a xar moo xam si dafa am lu muy laaj. na nga du jinne du rab. déedéet. wóppul. déedéet. ngay am lu muy laaj. xam daal ay système tànkee rek lay mel ni kuy gas. eh. laa ilaha illallah di ko gas nii. naa ko nii ci kës ci kës la ilaha illallah la doon sa mam dañu ñëwaat nag laaj ka naa ñu ne ma xar mi daa mbàkk bu muy laaj ma ne lii daal caam rek moo ma ci doy foog ma ñëw seet sa la nga dimbali ma ci lii ca xar ma ca nday dang maa indi foo xam si tey jii dang maa fàttali lu bari à l'âge de six ans sama maam Lat Joor Jóob Ngoné Latir Jóob amoon na xar moo xam noonu la meloon waaw kuy mu rëy ba mu ñëwee mhm. saamam rek ko ca doon bi ne wootee saamam saamam di dem dama ne ko maam da ma may yóbbu mhm. ma doo dem gone nga mën na ko damay dem xam nga rek yëfi gone may jooy mu yéen a ma yóbbaale ma keroog ba ne ci kër la Joor Jóob Ngoné Latir Jóob mhm. saamam dañuy mbaa defaat ma xar ma yëngal ba ba nii ah! nopp yo jóg bi mu ne mam sama fayat ma mhm. xar ma teg ñaar tànkee nii ca kanam bi mu ne mam Samba mu teg ñaar tànkee ca ginnaaw. waaye bi mu ne mam Samba fayat ma mbaare fayat ma. Hmm. xar ma ñu sojj ju. moo tax bi lii xar moomee. Mhm. bu mi. Hmm. doon na ne jaayu xar mi mbaa bàjjenu xar mi mbaa baayu xar mi xar mi. xeetoo nañ xeetoo nañ. moo tax ma la sa aajo faju na. li bettu ma. Mene mene sus, mene ko mbaari fayan mai mam samba fayat mai, mari fayat mai mam samba yai jalla jaam mari fayat maa xar mi juddu wo ci manuma sa màgge woo ci manuma xar boo juddoowul ci manuma doom man ba ba ngay dee ay xar mi sa yaay dalaa ñaanal xar sa baay dalaa ñaanal yow kër gu sedd nga neex meññeef te doora ngi tam féex nga yaatu nga te teey yaa bax ci waaju tële wax la ci mbaari fayat ma maam samba fayat ma mbaari fayaat maay mam samba yaay jalla jaam gis nga li su ma ko waxee te jugut ma xàcc yoonu géwël barke yonente bi lii kooko bàkkal mu gaay mu xàcc laa ilaha illallah bu ko fa dégg sama ma xàcc sama sama sama sama sama sama sama kay comme que loolu di boor na maa jox woote bi ardo waaw nday dafa am am xar hmm. dama laa bëggoon a woo téléphone sax waaye da ngaa fekk may discuter ak moom pour dem hmm. dimbali ko ca xar ma hmm. ah. daa am na xar moo xam ne da ko jënd bi mu ko jëndee mu am la muy laaj mu ñëw wax ma ko te damaa bàkk ba ma bëgg comme que ñëf bokk nekk nga xoolal ma xar yi ma ni fa coowu dem lijjanti ko di kaat du yàgg mun na nekk de acca bisimilah nan dem waaw ci kaw condition condition la waaw léegi yow da ngaa bëgg bàyyi gétt gi fii. Ah. dem ci beneen gétt di ko bàkkal. fii kenn waxu fi ay gétt de. sama xara am problème. day toogal toogal toogal ardo bi damaa dama damaa dégg déggu ma de. dégg naa la de. ma de. da bëgg a bàyyi gétt gi fii. waaw dem di bàkkali beneen xar ci beneen get waaw loolu nga bëgg a def. waaw ma ne mun na nekk. Ah, waaye condition. Ah. boo demee bàkki ba pare. yam fa nga jeexal tàkk ci gétt gi. ardo loolu soxor wala lu mu doon. léegi mais waxal ak kii. man kii dama xamul lu tax mu bon. yow li tax nga ñaan laa xamul lan la soxna si man waxuma wax ak man nag. Ah, ndax maa la dul may sax nga wax ak man. voilà kon noppil jiruxuloo moom. maa la dul may nga wax man. noppil kon eh, nañ dem yow léegi xam nan la. waaw jiruxuloo ardo. waaw léegi nday man nga indi xar mi fii fii fii man nga indi xar mi fii ma bàqal la. fii kar du fi ñëw ah, xar bu doon ñëw sax du ñëw. ndax ah, xar mi su fekkee ne dag may bàqal samam nga ñëw ñu dem bu fekkene nak ñak fay da mo la taxa taxaw fi du sax nga taxaw fii. dama bëgg nga xamni ne pire nga. deug la gis nga bak bobu moy hmm. sa baxu mam deug la deug la. bu fekkene ku ñak fay fayda ki iñaan soxor mo la jaral nga baye saw bak hmm. nga tok si nii sa ñak fay da mané la ma tay fii sama gétt la iñaan di nga ci yag wa bax jërëjëf soxor ak bon gi. baye bo di nga ci yag baye dina la noppal. wa baye bo di ngay fay da yëpp. baye bo fi sama gétt la luma neex la fi doxal. ñàkk fayda nday ñu leen def rek ñëw ci bu guddee su ma teelee wàcc dinaa ñëw foofu dégg guddi xoolal ay vingt et une heures vingt deux heures rek dinaa ñëw ñëw ci gétt yi di doxaanante rek doxaanante rek naan sama kar bi mooy laaj waay fan la carte di laaje waay mos nga gis carte buy déglu bay waay ah ardo maanaam li ardo boo buggee demal nga jeexal ci gétt gi déglu ma rek déglu ma rek man ak yow ñoo bokk nekk fii waaw bu nu mënta dimbalante mënta jàppalante waaw yaakaar naa ne kon jëru ñuy nekk yow juróomi minute yi ma xoolal sama xar ma dem yëkkati ko xar mii baax na caam li ma la wax leer na demal sàmm mbayaan ko ma mbaari nga des fa jeex na yow li nga am ci gerte gi doyu la ma sëg ah? waaye ma di géwal boo dee géwal nag bërki démb nga fi benn waay ñëw fi ñaata kar la jënd ñet ñett la ay buum waaw sama kar laalu ko doo doylu ngay naan da ngay sàmm mbayaan nag da ngay mbaari fayaat lii sama wërsëg la dama ko war a jëli xarmat la rek dégg nga ju bàyyi ma saa wërsëg rek mën ta ñëw li ma la wax leer na. ah boo mënee dem nga bàyyi gétt bi jeex na nga dem loolu kese la. arbre saa waay nga de. léegi nag. nga léegi nag. sa waay laa de léegi ah, booy def doo def loo moom nga def. bari yoo lay. mooy yow. ñaala gay naa goddaan jëley ardo ardo ngay. ardo yow sow pour la jéeri borom nagak meewi ay waay may ma meew maa nga may ma nagak doo meey borom meew yow yaay borom meew ardo ardo ngay may ma meew maa nga may ma soow wala nga may Serigne Modou Ladiane meew maa nga may ko soowee ardo waaw ardoy waaw léegi kabu lu ma bëgg waaw acca dama dama bëgg sax nga jàngal ma mbaari fayaat bi ah, di waaw sa bàkk waaw man mënu ma ko bàkk dama ko bëgg mokkal rek. danga ko bëgg man rek. keese keese keese loolu kese. ci dara mokkal ko dong. mbari fayat maay. Ah. maam Samba fayat maay. mbari fayat maay maam Samba. voilà. yaay. jalla jaam ni ma rafet maay lekkay neex na bàyyil man ma jéem a xool ba xam ñëwal ñëwal nga ma te war naa ko man ñëwal ma xool voilà fayaat maay kar bi doo ko doo dem baaxul samba demoo caam demuloo kar bi doo ko wayale gerte gi doo ko ey daw si daw si waaye daw si daw si leen way doxal waay doxal xoolal tabaski bu ci nekk ak ñi muy dikke ee eh, tabaski bu ci nekk na ci xewe waaye nag tabaski ren man moo ma